ak kilifa diine yëpp di nuyu askanu Sénégal yëpp di vraiment am mbégte ni ngeen ma seet seen nii mais nag tey moom jour bu spécial la parce que anniversaire u euh, génn àdduna Thione sec. def di lu lu tiis lu loo xam ni daal chaque fois bu ñu yeewoo rek dañuy xalaataat Thione surtout euh, lim fi bàyyi maanaam œuvre œuvre œuvre li mu fi bàyyi ci ay buñ ko dégloo tey man tout le temps dama koy dégluwaat bien sûr damay déglu ay œuvre am chaque fois boo xoolee coon fi muy woyee ah ñu bari day wax dëgg yàlla du ma ne kenn du fa woyee de waaye ñu bari duñ fa woyee wax dëgg yàlla donc ñu koy ñu koy ñaanal ci bésu euh, anniversaire u génnuk àddunaam bii muy tey yàlla na ko suñu borom teru ci aljane firdaws yi gëna kawé voilà loolu dal mo don suma diko jalé nak nag askanu aussi askanu bien sûr Sénégal yëpp diko ko di aussi askanu ngéwél yëpp diko jalé aussi askanu musicien artiste musicien yëpp duma né ne artiste musicien sax mais acteur culturel yëpp parce que coon coonu coonu culture bi la won donc ñukoy ñukoy ñukoy jalé ñu di ko di ko jaale famille famille am di ko jaale jaaga euh, di ko jaale ñoomin euh, ki ñu gën a xam mooy suma doom jooju Wali Seck di ko jaale frère am yi frère Wali Seck yi ak sëram yi ak magam yi ak rakkam yi ñëpp ñëpp ñëpp ak askanu comme ni ma ko waxee tout à askanu artiste yëpp yëpp yëpp yëpp parce que coon wax dëgg yàlla coonu Sénégal yëpp la woon coonu Afrique yëpp la woon coonu monde bi yëpp la woon wax dëgg yàlla ñu koy ñaaral yàlla teertu ko teertu bu rafet ca àjjanay firdaws yi gën a kawe loolu daal laa ko laa koy ñaanal ci témoignage parce que boo xoolee bu baax si dernier mois yëpp dafa moo tax bu moo ciy wax dafa am ci euh, benn émotion bu may bu may parce que si dernier mois yëpp avant muy guen aduna man mom ak Abdoulaye Guissé ñoo daan nek tous les jours kërëm bés bu yalla sak ñu ngi kër coon moy juróom benn wër avant muy guen aduna ñoo ko daan nek tout le temps muy suma rak ju baax nitu dëgg nit ko xamni euh dara mënu ko won takalek bopam lu dul ngay ngay wax lo xamni du dëgg te coon dama seetloon benn affaire aussi bu ñu toogee di waxtaan man moom ak ab lay Guissé dama seetlu woon ne bëggul kuy wax ci ci ci ginnaaw nit maanaam bëggul kuy wax ci ngay wax loo xam ne euh, voilà wóoru la ci nit ki nga ko loolu daf koy daf ko daf daf daan loo xam ni loolu te man nit ñu mel noonu dama te dama dama leen di dama leen di naw parce que jëw baaxul des dañu bindoon benn woy bu ñuy wax seku bàyyil nettali ndax dañuy feddali ah te di fàttali donc ñuy fàttali nit ñi ne leen Thione Seck bëgguloon kuy wax waxi nit waxi keneen ci kanamam bu mos ko bëgg bëggul woon aussi mm, li ñuy wooyee naafiq gëmu ko woon bëggu ko woon bëgg loolu aussi ñuy maanaam néewal doole doomi aadama bëgg ko woon gëmu ko woon li nga xam lu ma seetlu aussi ci moom boo daan ñu daan ñëw këram parce que coon ci ñi ko yar man mi ci laa bokk dama ko yaral a gël tàppe kër Samba Xoyaan fële euh, te loolu sax duma ci sori trop parce que xam naa amul ñi ma gën a xam coon daal bari bari gu ñu daal donc euh, dama seetlu ay nit ñu bare bare bare bare bare daan ñëw këram ay ñoo xam ne ay ay ay dëkk yu bari dëkk yu sori dëkk yu sori di mais benn bis ma ñëw xool ko ma ni ko waaw euh, kan la ñuy mu ne ma waaw grand frère day lii day yàgg na de lii rang bii nga gis ni du rangu tey du rangu euh, démb du rangu bërki demb rangu yàgg rang bu yàgg la depuis Gueule ba ñu demee ba dem Pikine ba fi mu dëkk yëpp fu mu toxu yëpp coon parce xol bi moo am lu fa nekk lu rafet te man dama ko daan xool ni muy toppatoo doomi aadama parce que ñoo daan lekkandoo ñoo daan añandoo man la juróom benni weer yëpp avant muy génn àdduna ñoo ko ñoo ko nekk donc am na yu bari yoo xam ni euh, daf ñu ko daan wax man ab lay Guissé yu yu doy waar mënuñu nettali lépp mais coon daal coon daal nit man daal li may fàttaliku ci moom mooy nit nit ku dëggu la woon nit ku xamoon teraanga nit ku amoon yitte ci nit la nit ku ku ku fonkoon diine la aussi fonk euh, askanam muy askanu ngéwél fonk leen lool fonk askanu Sénégal fonk artistes yëpp parce que ñun dañ daan wax ci affaire culture man ak Ablaye Guissé ak moom de chaque fois dañu nous cette cette ne day day day défendre culture té lolu c'est-à-dire ci ko xam dal da ngay bañ ñu néewal doole nit ci ci ci lolu mo la naan dox bëgguloon kuy néewal doole nit waaw surtout askan bi nga xam fa la muy askanu askanu culture bi muy askanu artiste yi quoi donc coon dal ñu ko ñaanal man man ka ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa te ñëpp man wóor na ma ne ñëpp Sénégal yëpp ñu koy ñaanal aduna bi yëpp ñi ko xam ak ñi ko xamul ñu koy ñaanal yàlla na ko yalla xaré àjjana yi firdaus yi gëna kawé kawe ci kaw ci kaw ci kaw. voilà rek kuy tegle parce que moo wax affaire gis nga seigne Touba. Mm-hmm. Cheikhul Khadim. Mm-hmm. kérok bëgg tubaab ya nono, ngir limu fonk réew ak diiné ba tax fu mu ñëpp toppali ko ku tekk ngir tegle xamul tax yàlla jox ko moom la yàlla jox lu mu joxul kenn moom la yàlla may lu mu mayul kenn parce que dafa jaamu yàlla tarbiyu ba am li mu am donc nanuy tarbiyu nanuy am exemple ci ñu mel ni sëñ Tuba maam ci Maalik xam nga bërki démb fii ak appel bi maam Limaamu Laay ah ah tey ba ñaseen fële nga dem Maulana xam nga ah ak ak ak ñeneen ak ñeneen on a tellement dañoo am ay érudits yu nga xam ne war nañ ci bàyyi xel te ñooñu heureusement ñu nekk fii ci senegal gi pour pour bu lu ñu lu lu lu xale yi jéem a euh, kii ak yooyu yàq ak yooyu ñoom fa ñu ne ak fu ñu tëdd tey ñoom ñooy defar réew mii dañ koy defaraat rek ay réparer dañuy réparer rek réparer rek donc man li ma li ma wax euh, euh, Wally Ballago Seck mooy loolu dara walla dara amu fa woon lenn rek la mooy voilà affaire u et gis nga lii tax nga réussir moy ñi la entouré ñoy ñoy sa réussite gis nga ñun on joue avec les plus grands musiciens de cette planète là aduna bi Denis dañuy déglu dañuy dégg man fi mon suma studio di bindal ay ghanéen ak ay nigérien ay wayaki yu kenn xamul dama koy de tout le temps tout le temps di leen envoyé euh, ci ci aux États-Unis xam nga en France ak yooyu mais pourquoi mën mënuñu mënuñu eh, dal xam ne eh, coon daf ma naan wax loolu ndeysaan naan ma waaw mais kii lu moo daw bay daanu ne kii kii kii lu moo daw bay daanu amul yàkkamti yëf yi boo defee ndànk tekk ak tey ni la kuy tegle lépp waa tekk da lay wan yoon lépp looy soxla subhaana taala daf la koy indil jox la ko waaw loolu daal li may conseiller xale yi aussi ci musique bi mooy ñu xoolaat seen taxawaay bu baax a baax a baax